dikkati naa coow la ca pëndub teen ba day gaaña amul bàgg tribune yéene kaay ne ma coow la diggante Mansour Faye ak Bougane Gueye Dany day doog a tàmbali xaajagul sax bay jeex Mansour génn na ne weddi du ragal setal sab der la Bougane Gueye Dany ne ko say weddi baaxut ndax waxoo dëgg tribune yéene kaay naan man Bougane Gueye Dany ma nga naan goro national goro président de la république Macky Sall doo wax katu dëgg cay naan kon yow Mansour Faye yow laay waxal ñi nga xam ne xam nañ dossier 98 milliards bii xam nañ ne soora waxoo dëgg yow sax nag dangaa dëggal samay wax xaalis ba nga ne jaarul trésor dama ne la dafa dëggal samay wax bugaan géy dani naan leen wiiri wiiri jaari ndaari xaalis bi laa ni leen anamu wala it la des ca xaalis bi yow Mansour Faye goro national sa jëkkëru rakk saa si tembe nag moo lay suturaal moo la protégé waaye nag jàppal ni waxtu wi jot na ne ngir ñu yeraat compte yi ndax nag saa si tembe li leen dese dafa bëriwul nag daanaka ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci fan moo leen dese ci nguur gi la ngaamu leen waay waay la ngaamu leen Modou Gueye ànd defar Sénégal ci le point yéen Ndiaye naan koon déet ñun kay combat bi ñu yor saa si tembe mooy nu ñuy def ba falaat président Macky Sall 2024 Bougane Gueye Dany naan kon may ma la ma nekk daf maa teel may ma ndax nag saa si tembe nee ñu man apprenti politicien la waaye ma ngi yëngal gësam seen guy di leen sànni ay xeer bien bon di sulli seeni mbóot la ñu nëbboon di ko làq ma koy lu xarti te du ma ci yem lépp loo xam ni ñaaw ñaawteef la nguuru président Macky Sall def ko ci réew mi Bougane ne naa ko génnee 24 heures yéen a kaay naan man Bougane Gueye Dany kay ma ngay na paaje Mansour Faye naan maanaam kon xam nga ni yow waxoo dëgg ñi lay déglu xam nan ni waxoo dëgg te ñi xam dossier 98 milliards bi xam nan ne Soora waxoo dëgg lin la tuumaal lan ne la nga ànd ci ay gindi waa grand place naan man Bougane Gueye Dany nga mel ni ku yor gune di ko jàngal nan ko jàngal wax dëgg te wax dëgg gi day dooree ci ne sénégalais yi fan la 98 milliards yi nekk wala yi la lekk lan moo ca des du nee nga da nga wax dëgg génneel preuve ci kanamu sénégalais yi arrêté bu 23 novembre 2021 bi nga xam ne mooy organiser condition yu recours bu empreinte bii daal di xamle ni dossier yu lebu xaalis yépp ministère des finances ci boppam moo ko war a valider léegi ngeen lebi ci xaalis boo xam ne ministère des finances yëgul xaalis boobee ñëw ci réewum Sénégal jaarul trésor ngeen ni marché bi na ngeen ko defee baax na baaxul te respecté woo Sénégalais yi boo leen respecté woon daa leen wax dëgg l'évidence yéen a kaay naan maan Bougane Gueye ni day ma ngay jàngal Mansour Faye nees waxee dëgg critique yéen naan kon sab ñaq waaye tam na ngay dëree booy wax ak Sénégalais yi mooy wane ni dëgg-dëgg sóor a wax ji yeggul te it wax ji yembul lenn la ñu bëgg mooy xaalis bi ci boppam ngeen génne ko goxi ko lu ko mooy saa bu ñu xëyee apprenti politicien bi dina dal seen kaw wax leen luy tàkk te du fay génnee leen seeni jinax yi nga xam ne dencoon ngeen ko mu ne fàng nag askan wi yëpp di gis critique yéen kaay na maa laata loolu gat sa gat sa gi day tàmbali ci réew mi Walf ko dajee naan kon lépp dafa yemb ngir gaay yi ci boppam mën a dalante seen biir libération yéen kaay naan kon waa Benno Bokk Yaakaar ña ngay dal ca kaw yeewi askan wi yeewi askan wi moom it di riposte wel tribune yéen kaay daal di jox kàddu député bii di Abdoulaye Diagne mu daal di chargé bi ba mardi taali moom Abdoulaye Diagne xam le ni manifeste yi ñu bàyyi yeewi di ko def ak yabaate lay nuru xam le ni nag gars yi nañ def résistance ndax nag yeewi askan bi bëgg-bëggaa mooy déstabiliser réew mi war ñu ko nangu ci Sénégal njaay gii coordonnateur bu maire daal di xam le ni nañu fexe ba manifeste gii doonub échec mooy dëgg ndax nag bu la yóbboo ci yoon nga am ay preuve yoo xam ne mën na laa setal waay waay jarta manifester Omar Ndoye responsable APR ci Pikine naan gars yi li ci boppam moo war a jël cëggal guyam waaye tam parents yi jël seeni responsabilité ci coow lii ndax nag seeni doom ña ngi leen di jëfandikoo l'observateur naan maan ma ngay ñaaw de ndax nag ku ci nekk ci kang bi nga bokk yaa ngi woote aar sa bopp bés bi la jour na ñetti fan lan jëm ci réew mi yoo xam ni maar day taali le mandat yéen kaay jox kàddu Souleymane Ndiaye bu S2D moom jiital sab koo saa si tembe day président Macky Sall ak nguur gi ci boppam ñoo war a jël seeni responsabilité ci lii coow li mooy nag mbir maa ngi bëgg jéggi dayoo saa bu ñu xëyee ni manifester ñuy taal réew mi heure bu leen neexee wax lu leen neex ci nguur gi te France daal di xiddeem Souleymane Ndiaye ne nan cee wax ndax réew mi nag dafa mel ni lu waay neex def la xoolal situation ba am ca SAPCO rek soxna yi ñu leen di fay loo xam ni maar day taali yi dafa war a dakk te saa si tembe ci boppam dafay dakk libération yéeni kaay naan ña ngay xas waa yeewi askan wi de waaye ñoom nee ñu lu njiin njaak nguuru Sénégal mooy njaak le quotidien le quotidien ne Pastef kay xamle na ni saa si tembe nguur gi recruter ay nervi ñoom kay kuy taal réew mi ñoom ngay jàppale am ci ministre yoo xam ne dañuy dem bay woote ngir ñu taal kër Ousmane Sonko waaye ñii bu ñu wootewul violence ku woote violence ci réew mi source a naan man en tout cas président Macky Sall daal wéet na ci xeex bi budul Abdoulaye Seydou Sow du Mame Mbaye Niang du Doudou Ka du Pape Malick Ndour du Cheikh Omar Anne du Moussa Bokar Thiam du Yankhoba Diattara du beneen ministre boo xam ne yaa ngi dal ci kaw Ousmane Sonko bar na ci ministre yoo xam ne tudd turu Ousmane Sonko sax ñemewuñ ko yéene kaay bi ne loolu nag jar naa sampub laaj mbaadu nag dañoo waajal transhumé mbaadu ministre yooyu dañoo am yoo xam ne lees waxul la te ñu bëgg nag bu nguur gi suppi ko ñu am daan ñu teg seen kaw le mandat yéen kaay jox kàddu bugaan gay dani mu naan lu waaye muñ mu jeex de ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci fan moo fi desee président Macky Sall ki nguuram luubal gi ci réew mi léegi mu jeex muñ leen ndax nag sàcc nañ ñu ba sénégalais yi deseetuñu dara luubal nañu ba sénégalais yi xamatuñu fu nu jëm wor nan nu toroxal nan nu tëñëx tëñëxee nan nu tëj nan bugaan naan la soxna sa waxoon jeeg balaa lay wax de lan lan lay gërëmee waaye yow président Macky Sall bu sa ay jeexee lu ñuy gis ci yow lu dul ay goro yoo xam ne dañuy sàcc ay ministre yoo xam ne faale wunu seenu askan réew moo xam ne saa si tembe ñi ngi tëñ tëñal gay naan kon cim sa ngoroog Sénégal ndaw ce rajo am suuf Sud jee naan saa si tembe day nguurug Sénégal dafa tële daal dinay nag wékk ngànnaa yi ndax nag dafa ne woon dañuy wàññi dund gi far transport ci boppam ñu daal di ko yokku ticket aftu yi yokku nañ ko Walf Quotidien naan kon en tout cas ca Touba moom Serigne Mbaye Thiam gannaaw ñàkkub ndox ba def ni leen débrouiller leen waxtu waaw tribune yéene naan maan moo am nañu ko bëggal beneen mandat soxna yu jàmm gën dem Mbaaw nee ñu président Macky Sall la ñu bëggaat ci beneen juróomi at madame Fall Adja soxna yi meeru jàmm gën si Cap Mbaaw ba woon Kumba Ndoofeen Fall woo soxnay jàmm gën si Cap Mbaaw ya naan président ki Sall day la ñu bëgg falaat naan kon Sall yow la ñu joxaat beneen mandat ndax saa si tembe yaanu soppil xar kanamu jàmm gën si Cap Mbaaw léegi ñu tàqalikoo ak mbënd te it tali maam jaara bi léegi mu yemb te naan kon ak lu mën a am saa si tembe soxna yi ci boppam ñi ngi demal seen bopp las yéen kaay naan maan ca géejawaay receveur bu domaine ba daal dinañ koy dàq turbine yéen kaay naan man Daouda Diallo dem na waaye terewul nag xeex ba ci boppam ma nga foofee ngaraaf naan leen sunu suuf jël nañ ko ci géejawaay def nañ plainte ca OFNAC la ñu bëgg moom moo di ñanu jox terrain yooyee ñu annulé ko daal di def audit nag ci programme bii jébbal yi askanu géejawaay ndax ñoo ko moom l'évidence yéen kaay naan man booba ca programme mu xëyu ndaw yi moo Modou Fall directeur de l'emploi day daal dinay suqali daara soxna umu sëyi sekk ca poroxaan jébbal leen nag ay matériel informatique ngir soxna ya di ndaw yi jigéen yi mën a jàng-jàng boo xam ne dana ñoŋ lool lool la soleil yéene kaay ma président ma Sall it ma ngay mise ci avenir ba booba daal di jël gaynde yu ndaw yi dalal leen ca ba jébbal leen kenn ku ci nekk fukki million ci suñuy koppar laas yéene kaay naan maan mbóot yaa ngi suleeku maire bu cees day ma ngay suleeti yeneen scandale libération yéene kaay ma ba raw yu kër Masaar yii juróom ci woto la ñu ne dafa ni saraax daal di réer bokk na ci ñaar ci ambulance ak corbillaaru commune ba ba ñu joxoñee baaraamu tuuma maire ba génn di Moustapha Mbeng dafa ne benn 4 4 pick daal la gisul te 4 4 pick-up boobee ko jébbal